ngi Touba euh, na ko nag ci loxo yi waa Safinatul Aman dal di ko dénk police ak gendarmerie sas na leen nag ngir ñu taxaw askan wane yeewoo ca Touba euh, ci wàllu kaaraange ak seen euh, moomeel. Mhm. bokk na ci ne nañu fexe ba matal seen mission ci waar woowule leneen lu fës yi Sall ñu ngi ko ci ay xaar euh, actualité bi bindoo na noonu euh, leneen itamit euh, Tambacounda njiitu réew Macky ma nga ca Tamba foofee ca Bundu wax na ay projet Tambacounda yéenekaay yu bëri xëy nañ ci tey ñu ngi liir sax ci le mandat ne lu ëpp juróom benn téeméeri milliards moom la fa nguur gi bëgg a jëmmal ngir suqali Tambacounda bokk na ci tamit rapport Cour des comptes fës na lool Libération xëyaat na tey ca ministère des sports ñeel la fa jaar ci ay millions te itamit lañ ca jot a teq mbir yàgg nañ ko jëfandikoo ak daaj bañ ca tudd yéenekaay bi dikkat na ci euh, mu ngi ñuy xamal itamit actualité bi ci tawub noor goo xamante ne ku yeboo séntu ko ci at mii di waajal nuyoo si bu ñu sukkandikoo ci waa météo euh, lii moo fës ci actualité mhm. bés bi euh, ñu doon leen ko tënkal tawub noor tawub noor mais loolu neef la rek. xam nga nag tawub noor neef bu seey la rek. mais tawub noor béykat soxlawu ko sàmmkat soxlawu ko nappkat soxlawu ko. Ah tawub noor. loolu kon mbugal la xanaa. taw noor du du ngëneel ndax day fekk lu mu fekk ci àll bi muy ñax mu wow. Hmm. ñax mi day day day day lóor. wala boog mu dem ba daanaka mala yi dootuñ ko mun a jëfandikoo. Euh, donc euh, bu dee ci wàllu géej gi dina am lu mu yàq. Euh, donc bu dee ci wàllu càmm gi dina am lu mu yàq ci wàllu mbéy mi dina am lu mu yàq. Mhm. ba tax na daal jaar na fi nag du du guleet Sénégal mhm. dundoon na ko deux mille un deux mille deux. dundoon na ko deux mille treize ak deux mille dix huit. Euh, bi la nag métti woo ne ku yeboo séntu tawub noor. tawub noor ci ndorteel deux mille vingt trois. gi ñu gi ñu waaj a dugg. alors mhm. euh, mën na nañu jublu directement ci actualité bi ak Aliou. ma ngoog Sow ñu ngi lay nuyu. di la sant di la gërëm yow sama séeréer bu. baax bi jërëjëf wax gi bari nag bëgg na mburu hmm. mais mais mais nit ku baax la jërëjëf donc c'est un plaisir soo may laaj damay kontaan di kontaan kontaan <laughs> Ablaye dog ko Ablaye dog ko. ma ngoog euh, dama lay dog alpulaar bi. ñu jublu ci actualité bi bokk na ci say Muntaxa Serigne Muntaxa Mbacke xalif général de Mourides wax na démb ci lu aju ci kaaraange tuuba xam nga ay at a ngi nii weesu ñu dénkoon ko Safinatul Amaan bi la yoon nag xalif bi jël na dogal jële ko ci seen loxo euh, dënk ko takk der yi maanaam police ak gendarmerie euh, noo jàngatee dogalu xalif bi ñeel kaaraange Touba. xam nga c'est-à-dire que euh, bon Mbacke euh, Balaye sa yàlla fi yàgg te wér. amiin amiin euh, moom de xam nga dama doon murit. Mhm. te am na ay décisions yoo xam ne man personnellement du ma ci du ma ci réfléchir. Mhm, da ngay jëfee dama damay jëfee. Mhm. parce que parce que dama gëm ni dama gëm ni dama gëm ni luñ ma wax luñ ma wax jóge ci Serigne tubaa moom parce que mooy Serigne Touba sur eh bien lu baax la donc euh, j'arrête de réfléchir bu fekkee ni dama jot euh, ndigal ca bu euh, soxe ko ca ca ca sëñ Mountakha mi nga xam ne moom mooy représenté sëñ Touba sur terre mhm. donc bu ma déggee ndigal boobu même attitude bi lay am rek c'est-à-dire que amaana xëy na dafa jot moo tax mu mu décidé ko noonu mhm. nu ñu tudd tuddati safinatul amaan amaan safinatul amaan mhm. vingt cinq ans ñaar fukki ak juróom ñu gérer sécurité bi à Touba liggéey fa liggéey bu mucc aar ayib ñëpp di ko wax eh bien na dafa jot moo tax sëñ bi décidé ni mhm. mbir mi euh, dafa war a changer. Touba ngi yokku Touba ngi yokku la fay yeewoo ci ay doomi aadama mu ngi gën di bëri. gën ci bari te laaj ñay tamit xëy na doxalin gu bees. doxalin gu bees la deuxième ville économique du pays. boo xam ne dafa war a euh, certainement dafa jot xëy na mu nekk sous contrôle justement euh, donc donc régalien. Mhm. Euh, si je peux dire comme ça donc donc donc que c' une bonne chose na ñu fexe rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo leen wutu. Mhm, ci mbir mi takk der yi. ndax ña nga fa woon aussi ña nga fa woon. mais di superviser voilà ñu ngi di superviser mais mais mais léegi. responsabilité à la ñu yor mhm. nañu euh, tenir compte de la spécificité euh, de de de Touba euh, par rapport ak le fait que ce soit une ville religieuse. Mm-hmm. ak yu bari yoo xam ne ñële ñi ngi ko doon def te mënoon ci dara. Mm-hmm. waa Safinatul Aman mm-hmm. que ñoom ñu bàyyi ci xel buñ ci booleeg seen expérience. ah en tant que force. force de l'ordre eh bien je crois que ni mbir yi mun na jëm kanam. nañu tenir compte de la spécificité. Euh, justement de Touba en tant que ville religieuse. bi nga xam ne ay détails yu bari dina fa mën a am Touba nag li ñu fa dégg bari na. tout à fait ci ay ay ay ay yoo xam ne wax dëgg yàlla. ce n'est mm-hmm. pas forcément souhaitable. Mm-hmm. Euh, comme yenn yenn yenn yi ngay dégg foofu mm-hmm. ay yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, dafa mel ni. Euh, lu waay neex def yenn saa ci lu bari ci fànn yu bari mm-hmm. donc yooyu nañ ci bàyyi xel ñëpp xam nañ li ñu bëgg a wax ma ngoog nañ ci bàyyi xel man man man ma jàngee ci ne dogal googu yegg si na ci waxtoom mm-hmm. ndax euh, fu jamono toll ak euh, tuubaak ak yaatuwaayam ak euh, la fa yeewoo ci doomi aadama population xalif bi bu jàppee ne war nañ ko mun a dënk Euh, takk der yi day gën a yaatal liggéey bi te tamit euh, sasu rëy la goo xamante ne takk der yi tamit euh, dañ ci béy seen waar ngir fexe ba. Touba ñu ñu ñu mun a sàmm ña fa yeewoo ci wàllu kaaraange waaye nag sàmm seen moomeel. mais surtout cela parce que dégg nañ fa yu bari yu demee yu bari yu fa xew. yu bari yu fa xew par rapport ak moomeel boobu ngay wax noonu. Mm-hmm. ñu si bari commencé nañu dëkk Touba euh, di di sentir seen bopp ci benn espèce u insécurité mm-hmm. euh, galopante boo xam ne dafa am te mm-hmm. loolu dafa war a jeex dañ ko war a freiner mm-hmm. te pour loolu je pense que ni force de l'ordre yi républicaine yi ñoom ñoo ci ñoo ko gën a yeyoo pour liggéey parce que loolu mooy seen métier te mooy seen liggéey donc ñu ñu renforcer ko fàttali aussi que ni mooy la deuxième ville Euh, justement en termes d'habitants ci Sénégal de concentration mhm. d'habitants euh, ba pare ba pare même ci wàllum économie aussi lépp a ngi Touba léegi ci mhm. wàllum économie baa ngi monte mu ngi mu ngi monte foofu euh, nit ñi yokk nañu habitants yi yokk nañu foofu macha allah donc il faut que force de sécurité yi man gëm naa ni mhm. li may li ñuy wax ni ñoom ñoo ñu ko gën a xam ñu def ay évaluation def le maximum de force de l'ordre ba nga xam ne sécurité bi Euh, ak insécurité bi nga xam ne day am foofu. Mhm. Euh, que mu mu jeex fa euh, de manière à ce que waa Touba yi. Mhm. que ñu la peur ñi nga xam ne la peur puisse changer de camp. xaw ma nu ñu koy waxee ci olof. maanaam ñi ñi amoon ñu amutoon xel mu dal. ca Touba ci wàllu kaaraange. waaw mun a nelaw ba yandoor. waaw mën a nelaw ba yandoor. loolu loolu il faut mu am bu amul rek après day compliqué. ma ngoog 89.3 Walf FM Touba ñu ngi ñuy taataan ci waxtu wile. 99.0 fii ci Ndakaaru 88.8 Walf FM. Thiès euh, baatu askan wi ci sàppa daggi ndaat saay ñuy waxtaanee tolluwaay réew mi mhm. ñu jóge Touba nag euh, jublu ci njeextalu at mi 31 décembre di jéemeloo ah. yaa koy waajal euh, te xam nga